yàlla du tas yaakaari ku ko yaakaar mukk mukk jomba naa tas yaakaari ku ko yaakaar dinaa leen sor xelal sax foofu lu tuuti balaa sëriñ bi jël ngeen dimmandikoo ko hadiisu qudsi Muhammad dafa wax ne jaam bu mu doon bu di jullit mu yor njàpp njàpp ma firéeku te jugul ca si jàppi manqué na yàlla jaam bu mu doon ci jullit yi mu yor njàpp njàpp ma fireeku mu yeesal ko te julliwul ñaari rakk manqué na yàlla jaam bu mu doon ci jaam yi njàppam fireeku mu yeesal ko julli ñaari rakk te julliwul ci Muhammad manqué na yàlla jaam bu mu mën a doon njàppam toj mu yeesal ko julli ñaari rakk julli ci Muhammad te waxuma soxlaam manqué na mën a doon njàppam toj mu yeesal ko julli ñaari rakk julli ci Muhammad wax ma soxlaam fajuma ko manqué naa ko te jomb naa manqué sama jàpp Abdullah ibn Omar moo nettali ne toog naa ko ba mu yàgg mu ne kii jëkk ñëw ci mbooloo mi ku bëgg a gis ko dëkk àjjana xool ko àjjana la jëm ñu ma toog tuuti génn góor gu ñuy wax Omar ibn ak ci kii baa ngee toog ak njàpp mu bees ñun ñëpp ñu xoolante xoolante xool ko waaye kenn waxu ko li ne bi wax ñu waxtaan ba tas ñu toog ba am deux mois ñu dafa géew ne bi neeti kii jëkk ak si àjjana la jëm mu ñëwaat di góor gi ñu xool ko bëti ñee waaye kenn waxu ko ñu toog ba lu mat juróom benn weer ñu toogaat di waxtaan ne bi ne kii jëkk yokku ci ñun àjjana la jëm mu ñëwaat di góor gi ne bi yoon ma ne góor gi daal dinaa ko topp ba xam li muy def ma roy ko mu xaar ba mbooloo mi tas mu dab ko na ko papa suma baay de dañuy jote ma giñ ci màggu yàlla ne ko dinaa jaraw sa kër ñetti fan ma bëggoon nga làq ma ñetti fan mu ne ko maa la jur ni nga ko jure arab nag dañu fooñal dañu fooral ngiñ comme giñ nga ko nag te da ngay bañ a teeñu kaay doom góor ga di ko fanaanoo waaye gos bi ne na gis naa buur safa ak wetar moom góor gi bu xasee safa ba wetri ba tëdd nelaw dootul jóg mukk lu dul fajar bu ma jaree mu jóg julli ci la sa noonu ci ginnaaw la sa noonu ma ne kii kat man day lii laa nekk nekk nee na lenn di nemmeeku naa ko xam naa ne boor ba mu tëdd ba tàyyi buy wëlbati ko foog mu tëdd yàlla su tëddee gauche ba tàyyi buy wëlbati ko foog mu tëddee foog mu tëddaat yàlla li ne bi doon wax naan ku bëgg a gudd fan ñetti yëf dee ko def boo tëddee la sa loxo joor faral di lekk papayo te bu mu doon bu ñor toon ñetteel bi su dara la sul takk takkal jànq baa leen ma de baa leen ma baa leen ma ko wax rek ma doon ko nettali